non kanam ah dëgg yàlla li ci ëpp sax bleu la ñuy sol. <laughs> xoolal na li <laughs> couleur couleur rek a changé. non mais vraiment te man li ma jaaxal day ànd ak Baye Mbaye jëndi <laughs> Baye Mbaye day jënd 3 mètres mu jënd 3 mètres moom mu mën cee am caaya ak kii ba yëpp. Baye Mbaye bu ci yemee que deux macha allah mi ngi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ayca ñu dem rek ñëwaat. Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké 19 novembre bi lee mooy journée culturelle am yi Omar. Mhm. ah Serigne Asfal euh, di ñaanal baax nag soxna Fatoumata Seye suñu borom dellusiwaat ko ci lu gaaw gaaw ci jàmm ak salaam. amiin euh, yàlla na ko suñu borom jàmmal moom njabootam Serigne Asfal donc di jëruñu Serigne Bara ci diwaanu Ndakaaru tey doon suñu gan. ñu fas yéene waxtaanee jëmm jooju ak bis bin ko jagleel journée culturelle Serigne Bara bi am la 19 novembre ci si sa 600. at mu ne ñu koy amal nag at yi weesu ñu fommoon ko ndax Covid 19 bi euh, tey nag ñu am mbégte gu rëy. Mm-hmm. ndaxte njëkke woon nañ ko sax ci alxamis yi ñu weesu. Mm-hmm. waxtaanee woon jëmm ji Cheikh baare waxoon ci yu am solo ci jëmm ji. Mm-hmm. waaye tey ji jëmm jooju rek euh, ginnaaw ba njëkkee nuyoo. ñu dalal jàmm lan bëgg rek euh, nga soxtaluñ ci as lëf rek balaa ñu dugg ci euh, le 19 ak programme beeg nu mu fas yéene tëddee ndaxte waxtu wi day xat. waaw jërëjëf euh, bis bi journée sëñ Baara bi. Mhm. yaakaar naa ni sëñ Baara bi ci sama wet rek daanaka lii may def nii mënoon na ko def. Mhm. ndax gan ñi ñëw ay ganam lañu journée bi daanaka moom lañ koy defal. ndax mooy sëñ Baara. Mhm. waaw kon euh, journée Cheikh Mouhamadou Lamine Baara dafa nekk euh, bis boo xam ni euh, bi ñu koy sos bi mooy quinzième édition édition bi. Mhm. te ci diggante bi am na fi bi Covid bi ñëwee. Mhm. toog nañu defuñu ko. nit ñi nag namm ko lool. yàkkamti ko lool lool lool. li tax ñu koy def nag mooy. dafa amoon ay jamono. Cheikh a Lamine Baara daanaka ku ko tudd ci ndakaaru xamuñu ko woon. Mhm. dañu jàppoon ni liñ ci xamoon ci moom mooy aw tàngoor. Mhm. ak euh, fulla jeeg fayda ji ni mu bare. Mhm. ba daanaka daal ak njabootam sax ñemewuñu leen woon xamuñu leen woon. waaye ginnaaw bi ñu tàmbalee def journée bi. ngir fésal ab liggéeyam. pour wane ni tàngoor woowu. ñu doon wax ci biir ñu doon wax. maanaam la ca biir amul daray tàngoor lu dul taw féex ak xéewal mhm. moo ca ne mhm. sëñ Baara nekkoon jëmb joo xam ni moo doon ñetteeli doomi eh, ku tedd ki sëriñ Tuubaa Xaadimu mhm. Rasuul euh, gannaaw ba mu ganee àdduna ña nga xam ne ñoom la sëriñ bi àndaloon muy ñi jiit woon ca kër ga sëriñ bi ni leen li ngeen doon liggéey li ngeen doon ut si fii ci kër gi gan gi ñëw indaale na ko mhm. kon ci la leen yeewee mhm. euh, sëñ Baara nag diirub li mu fii ne ci dimbalee jàngale mhm. ak jëfe yërmande ci la nekkoon yàlla dogal nag mu teel fee jóge ndax ginnaaw ku tedd ki bi mu demee Touba bokk na ci njabootam ci ñi ko fa njëkk a fekki bi mu fiy jóge itam ak njabootam ay tuut tànk lañu woon waaye taxawaayu magam ji sëriñam ba mhm. sëñ Modou Moustapha mhm. ak njabootu sëriñ Touba gi ci seen wet moo indi lii tey mhm. kon euh, baax na bi ñu demee ba jëmmi jamono ba ak njabootam yegg fi ñu war a yegg ñu xamal leen kan mooy cheikh Mouhamad Lamine Baara yàlla dogal itam mu daje fekk suñu jàmbaar ja cheikh Sidi Mokhtar euh, moom it mu nekkoon jëmm joo xam ni taxawaayam ci diine ji ak ci yoon wi ku ne gis na ko ku ne xam na ko mhm. ca la biddiw ba ferxe ñu daal di xam ni jamono yi sëñ Baara yegsi na wax dëgg yàlla bi ñu tàmbalee journée bi nag ci lañu ñu génne jëfi sëñ Baara liggéey bi ak am njàngaleem ak mbind mi nga xam ne daana ko bind mhm. waaw euh, ba nga xam ne daal ci la àdduna bépp xamee sëñ Baara daal. <laughs> ba léegi balaa may jox saa ak béteeg Cheikh Baara ñu ci yokk. dafa am euh, comme li nga wax ni jëm la joo xam ne dafa làqatu woon ñu koy dégg rek. Mhm. ngeen bëgg xamale ak jamono. Mhm. ndax ba mu fi jógee yàgg na. Mhm. fu quinzième édition mais danoo gis ni at mu ne. da ngeen di gën a yokk seen doole ci côté communication. parce que boo xoolee tey jii amul benn média bi télévision ci Sénégal bu bëccëg boobu amee waxtu wa muy daw wa muy jeex. télé boo taal li ëpp ci tele Sénégal seen bëccëg boobu moo ci am lu tax ci wàllu communication li tubaab naan maanaam lésiné wu leen sur les moyens maanaam sakkanoo loo leen dara. Mm-hmm. lépp lu mu laaj ci communication rek da ngeen ko ci def lan moo waral wala da jàpp ni jamono moo toll foofu. waaw dañoo xam ni jamono moo toll foo xam ni. Mm-hmm. Euh, loo bëgg mu fees loo bëgg a valoriser nga boole ci communication te ñu ànd ak jëmm joo xam ni maanaam euh, li ëpp ci ay moyam ak i pexem mooy fexe ba fésal sëñ Baara. muy Cheikh euh, sëñ Basiiru moom sëñ Xaadim Awa Ba mi nga xam ne mooy coordonnateur national bi. Mhm. Euh, maanaam moom léppam dafa jàpp ni sëñ Baara fi mu bëgg yóbbu turu sëñ Baara. Mhm. naam sëñ bi romb na ko. Mhm. waaye ni mu ko bëgg a mënula yox yoxi ci communication. Mhm. te sëriñ bi jaral ko lu ne itam. Mhm. jaral ko lu ne ku ne xam na ni communication fi mu toll ci àdduna ak il faut aussi nga am ay moyen dëgg dëgg dëgg dëgg. Mhm. pour mën a jëflanteek ñoom. moo tax wutuñu ci dara lu dul tawféexuk sëriñ bi rek. ak it dimbali waa réew mi. dimbali àdduna bi murit yi ba nga xam ne dinañu xam njariñ li ne ci Cheikh Mamadou Lamine Bara. waaw jërëjëf macha allah waxtaan bi am na solo. Eh, tey li nga expliqué ci njëlbeen gi. man foofu laa bëgg démarrer mooy que ni li nga wax ne sëñ Baara boo ko déggee rek nit ñi waxoon ko tàng gi rek lañ doon génne. l'autre jour bi ñu koy waxtaanee fii sax eh, loolu mooy li nga xamante ni moom la nit ñi doon wax eh, nga xamante ni côté boobu rek lañ doon génne mais defe naa ni avant ngeen koy wax sax. bon Cheikh baar mii keroog wax na ci wax joo xamante ni bi après ñun ci la ñu soog a découvrir beneen facette bi muy lu jëm ci côté bi nga xamante ni bi mooy kii bi tawféex bi nga xamante ni bii nga ne moo nekk ci ginnaaw euh, liñ doon wax noonu yëpp après parce que wax nañu ni mu daan def ci diggante dëkk yi nga xam bu mbas amaan ni nga xamante ni bi noonu la daan doxaleek ni nga xamante ni bi noonu la def ak tamit ni mu daan fajeek yu mel noonu nga gis ni am na yeneen yu bari yoo xamante ni bii léegi yu mel noonu yéen est-ce que nan ngeen ci war a nan ngeen ci fas yéene taxawee pour gën a mën a fésal tamit li nga xamante ni bii mooy loolu yan kii ngeen nar a jël pour gën ko mën loolu ndax thème la yoo xamante ni bii ci bis bi da ngeen ciy waxtaan wax kan mooy jëmm ji expliquer nan la yëf yi mm-hmm. nar a tëddee daal. la vie est l'œuvre. Euh, euh, comme fi ñu mm-hmm. toll nii. Mm-hmm. daanaka plateau de télé yëpp euh, suñu. mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu xam-xam ak wàllu jàng mm-hmm. ñi ngi inondé plateau yi mm-hmm. di wax baax baax yi sëriñ baara ak jëfam ak liggéeyam mm-hmm. di wax téere yi nga xam ni bind na ko ak njariñ la mu am ci lañ koy tàmbali fi mu nekk ni moo tax bis bi du le dix maanaam le dix-neuf day bis ba nga xam ne ci la cérémonie bay am mais lu jiitu bis bi plateau yéeg euh, yenn euh, plateforme yi nga xam ne am nañ ko muy plateforme de communication yëpp sëñ Baara lañ ciy waxtaane hmm. ak képp koo xam ni tudd nañ la bis bi di wax itam digganteem hmm. ak njabootu sëriñ Tubaa gi hmm. nga xam ni ay magam ak i rakkam ak ñi nga xam ne ay waajur lañu woon ci moom ak digganteem ak taalibe yi nga xam ni ñoom la daan defal nag tawféex googu waaye fépp foo xam ni plateau la wala média fii bis ba di ñëw dañ koy waxtaane bu ñu demee ba ca bis ba nag ci la ñuy waxtaane jëmm dëgg dëggi jëmm ji hmm. ak ñi nga xam ne ñoom la ñu ne d'accord maa ngi dégg ñuy wax ci ñi nga xamante ni dañ leen fa war a fàttaliku euh, mm-hmm. delloo leen jukkal Baye Ablaye Thiaw Laye mm-hmm. ak euh, sëriñ Pape Malick Sy yal na yàlla yokk seeni leer ak mm-hmm. ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni euh, ñu ci bari dañuy dañuy bëgg xam dañuy bëgg parce que ñu bari dañuy defee ni bu ñuy def yëfi murit murit rek lañ koy yemale dañuy fàttali ni umma islamique la dañuy fàttali ni ñun ñëpp ay jullit lañu léegi muy loo xamante ni aussi nan la idée boobu ñëwee parce que munoon ngeen ko yemale ci njabootu Xaadim Rasul kese waaye gis naa génn ngeen dugg laayeen dugg euh, ci tijaan yi dugg cene ba dugg feneen ak mhm. feneen yaatuwaay boobu ak ouverture d'esprit boobu nan la ñëwee wala borom bés bi noonu la daan doxe waaw borom bés bi moo daan doxee noonu euh, borom bés bi boo ñëwee këram këru diine goo dem mhm. am na ku mu fa séqal loo xam ni ñoom ñaar ñoo ko xam ndax mhm. foofi dem koo ci dugal fekk fa aw këram boo demee fekk fa euh, jëfam fekk fa taxawaayam beneen bi ci des mooy euh, ñu déglu itam message yu Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na ko yàlla dolli leer. bi mu fi nekkee. Mm-hmm. premier discours am bi mu defoon. loola itam moom it mu wane sëñ Baara. Mm-hmm. wane jëmmi sëñ Baara digganteem ak lislaam mm. loolu daal li ñuy inspiré nag ñu daal di commencé boobaak léegi saa bu ñu tàmbalee li ñuy njëkk a def mooy ñaanal réew mépp mm-hmm. képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi yaa ngi ci biir ñaan gi. daal tàmbali nag. këri diine yi ak gépp kilifa goo xam ni ku fi jóge la diggante ñaari journée yi ñu boole la ci biir ñaan googu mhm. boole la ci biir mhm. parce que itam da cee am ñoo xam ni xëy na doon nañ leen dégg seen riir seen nu taalibe seenu kii mais duñu xam dëgg dëggi nit ki kan la mhm. waaw moo tax ci journée bi am na journal bu ñuy génne boo xam ni képp koo xam ni ñu ngi lay rendre hommage wala bépp parrain bu ci nekk dinañ def sa biographie. Hmm. ba mu yegg. Hmm. def sa jaar jaar ak say jëf yu baax yi nga xam ne daa nga ko def dugal ko ci biir journal bi. léegi amoon na sëñ Abbas Mbacke aussi ak sëriñ Massamba Mbacke sëñ Abbas bu Daaru Moussi. ñoom dem ci bëccëg yi la ñu hmm. bokkoon. mais dama bëggoon na ñëw ñu ngeen ko tuddee bari na te ci panel yi di ngeen leen waxtaanee lu bari lu lu may jëmm sëñ Bara. mais le choix de Dakar pourquoi euh, ngeen choisir Dakar pour di fi amee la lor pourquoi pas Touba. wala Mbacké Kajoor waaw loolu choix de Dakar euh, dafa fekk ñu nekk Dakar dakaar di métro di kii boo xam ni gox boo xam ni maanaam euh, loo fi def loo bëgg àdduna bépp jot ci boo ko defee Dakar mm-hmm. ci lay gën a yombe pour ñu jot ci mm-hmm. waaw beneen bi ci des mooy euh, Dakar itam choix de Dakar. c'est-à-dire du choix boo xam ni dañ ko jël rek noonu. jàpp naa ni buñ ko bëggoona a toxal tey jii waa CICES est-ce que daañu ko. nangu daañu ko nangu. ndax économiquement wala. waaw économiquement. ak euh, yenn mbokk taalibe yi nga xam ni itam dañuy yaxantu ci yenn yenn kii yi. maanaam jug dem bi. waaw jug dem bi ak ñi nga xam ne sax dafa parce journée bi économiquement du. kii bi rek mais dafa am ñoo xam ne dañuy ñëw foofu. Mm-hmm. yor seeni i di ko. di am lu ñu fay amee daal. dafa mel ne daal. màggal gi ngeen di toxal rek indi ko Dakar. waaw kay. <laughs> waaw xam nga ñemewumaa yegg ci toxal màggal. <laughs> ñemewumaa yegg ci baatub toxal màggal. gi du toll du toll ni moom waaye nag ah. <laughs> waaye daanaka daal dañoo bëgg. Eh. kenn ku ne. gis ci boppam gis ci boppam ci mm-hmm. ci ci ci journée bi. Mm-hmm. waaw loolu daal yéene jooju lañ ci am. Mm-hmm. moo tax euh, ñu choisir Dakar fi ñu choisir itam di DCSS ñu fasante ñoom kóllëre goo xam ni daanaka xam naa ni ñoom it buñ ko fa bëggoon a jëlee moom xam naa ni. ñu bañ ah. Euh, dinañu bañ waaye am na am na fu ñu fekkoon DCSS bi ñuy commencé. Mm. waaye. am na fu mu toll léegi daal. waaw waaw xam ne <laughs> léegi dañuy jox euh, Cheikh Bara moom tam ah. mu sox ci. Ah. que Cheikh Bara sax mënoon na toog fi nga toog. waaw kay loolu laa doon loolu bëgg a dolli. waaye sëñ moo tax ma Oustaz ko na nan woo keneen parce que xam naa ni fan yëpp dafa soj. xam nga bi euh, gars di ñëw moo tax neexul jot. waaw waxuñu émission bii la. waaw mais suñ ma waxoon ne takk show la. Mhm. dama naan Cheikh Bara la foogoon nañ sax doo ñëw mu d'accord. Ah, waaw moom moom loo bokk moom da nga ci nekk <laughs> moom moom moom tubaarkàlla macha <laughs> allah Cheikh Bara waaw daanaka xanaa boo dalalee gan moom boo xam ne dafa maîtriser si bi sax daanaka bàyyi ko sax mu yaatal mooy gën mhm. waaye lu mën a am rek mooy euh, di woowaat ñëpp kon ci journée bi rek le 18 mhm. le 19 le 19 le 18 le 19 waaw le 19 incha allahu taala fii ci Cissesse di ci woo mbokki taalibe yëpp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi rawatina waa Touba ak waa Kébémer Kër Sëriñ Louga waa Sànnoosi ak mbooleem dëkk sëñ Baara yëpp mhm. euh, yaa ngi wax tolluwaayu màggal gi jàpp naa ne journée bi mooy bisu bis bis bi ñuy def ci yoonu murit bi gën a rëy ci yoonu murit fii ci ndakaaru moom mooy journée boobu waaw loolu moom yaakaar naa su ma samam natt naxut noonu la demee mooy journée bi nga xam ne moo gën a rëy ci bi orgo murit fii ci Dakar mooy journée bi fi gën a rëy euh, loolu moom mm, yaakaar naa ko te itam journée culturelle yi ñuy def yëpp tamit yi ñu defal waa Kër Sëñ Touba yi defe naa ne mooy bi ci mag mhm. euh, ki koy def tamit nag Sëriñ Basiiru Mbàkke moom Sëñ Xaadim Awa Ba moom day jàmbaar. moom mhm. du defantu dara daal. waaw même lu jëm ci euh, sëñ Touba ak lépp lu mu mën a doon rek maanaam moom bu koy def da ciy def fulla ak faayda ak dem ba jeex tàkk. Mhm. parce que journée bii mi ngi bëgg a yàgg. man daanaa nekk guy mbind di gone gu ndaw di lang ci kaar yi. Mhm. ñu ñuy dàq booba nit ñi di ñëw ndakaaru booba euh, yàgg na. Euh, tam ba tey jii arrière ci lu mu mës a am tamit def na ko ci. lu ko nit mës a jox tamit def na ko ci bis bi ba ciy def lu mu mënut. loolu Euh, dañ ko koy seedeel xam naa ne bokki taalibe yëpp gis nañ loolu. ki ñuy defal bis bi tamit day koo xam ne nit lim li may wax rek nit daan nañ ko giiñ wàlliyu nanguwu ko waaye moom moo waxal boppam yaa rabbana innal wara tadrahon li awliyaika mahan li yasfahon boo ko masaan ne ko wàllu yu kajoor xam nga kajoor la mbàkke kajoor gi mu nekkoon a tax mhm. dégg naa bu masaan ñëw ci ñoom maam Thierno na yooyu bi ñu ko ko wàllu yu kajoor mu ne ah déedéet ak bawal ak fépp dee yi ak bawal boo gisee affaire tàngoor yooyu ñuy wax. Mhm. sëñ Baara dafa amoon li jaaba. Mhm. maanaam bu lu mu wax maanaam euh, lu lu mu wax yàlla ne waaw. Mhm. day fal di folli ci lu gaaw mat naa ragal ci xarnu bi. dégg nga daan euh, fab na ca bàyyi ba yan bu diis. te nuruwul boroomu tiis. dégg nga euh, léegi nag sëñ Baara dafa nekkoon ci jamono boo xam ne buur yi dañoo bari woon ak tooñ bari caay caay. te ku ko mas tooñ bëccëg ba jant du la so te gisoo ko. ko mës a tooñ guddi bëccëg du la du du la du la du la fekk te gisoo ko loo ko ma a defalit bu la ñaanalee ca saasa nga gis ko ca saasa donte wopp la ak lu mën a doon mhm. loolu nag dafa taxoon nit ñëpp maanaam daan ko moytu ndax mhm. booba tooñ gi yaatu na bari na waaye mhm. sëñ Baara moom kenn ëpp ko woon yërmande te it kenn gënu ko woon a nekk nit ndax bari na dëkk dëkki dëkkaan yoo xam ne moo ko sanc mhm. yoonu murit ñi ci njëkk dem di gor ay dëkk muy sànnoosee kër sëñ Louga ak Kébémer ak dëkk yu bari mhm. moo ko sanc mhm. daan jëlal loxol boppam di ñaw di dagg ab tissu ba muy sol palmaan yi booba daanaka photoom yi booy xool léegi dañu doo ko sol col gi daan sol yëre yu rafet ku naqari daret du dem ci kenn te sëñ baaram must am daawul toog moom da daan wër rek da daan di wër di wër di wër fu mu dëkk bu mu yendu jàll feneen di gane ji noonu la daan dundee nekk koo xam ne tamit maanaam euh, xam naa temps bi du ko maye yërmande mhm. Mhm. la feesaloon del del del del maa ngi déglu ci xista yi foo xam ne dañuy wax sëñ Touba di ko laaj ci njabootam gi kuñ ko laaj mu ne kooku yàlla may na ko nàngam biñ ko laajee mu ne nag sëñ Baara moom fa ma yàlla ci bële la ko ci bële ab cërub boppam la yor mhm. loolu sëñ Touba seedeel na ko sëñ Baara sëñ Touba tamit seedeel na sëñ Baara ne ko képp ku ya ku bokk ci sa ñoñ du dem sawara da ne ko ma la wax yàllaa ma ko wax ma wax la ko te bi ko koy wax dafa woo ñëpp ñu daje mu ne képp koo xam ne bokk nga ci waa kër sëñ Baara. doo dem Sawara. daane loolu nag nekkut lu ma la wax waaye yàllaa ma ko wax ma wax la ko. dégg nga sirrul masoon itam bi sëñ Tuubaa jàppee laa ilaha illallah bañ jox ko maqaamal sirrul masoon keroog bi mu amee lu ko ëpp dafa jël maqaama jooju jox ko sëñ Baara publiquement na ko yaa moom sirrul masoon. te nag maqaama joo xam ne sëñ Tuubaa ko jël takkal ko nit. loolu itam bëriwul luñ ko mën a waxal nit. baat bi ñuy wax naan sëñ Tuubaa maanaam baatub sëñ Tuubaa ma mën na maa wax ne sëñ Baara ko moom ndax sëñ tubaa mbooleem Mbàkke Mbàkke yëpp ba ci sëñ tubaa juddoowul tubaa amul benn doomu sëñ tubaa ju juddoo Touba menn moom ci njabootu sëñ Touba gi moo moo ci juddoo tubaa te nag dëkk dëkk bu ñuy wax dëkk dëgg dëgg nag ka fa juddoo ko moom. jërëjëf rapidement rek ñu programme bi ngay tëjee da ngeen koy xëyee yendoo ko wala nan lay demee nga delluwaat ci programme ci suba gi euh, carte yi nag dañ ko parce que nit ñi dañ daan toog di xalaat nan bu ñu amul carte lu ñuy def mais amul amul carte ku njëkk ñëw. kon nekkatul invitation léegi. nekkatul invitation ku maanaam ku dégg bis bi rek. ñëwal dégg googu mooy sa invitation. Mhm. moom li ñu ci laaj mooy booy ñëw na nga sol col gu jiw col gu mën a dem Touba. Mhm. waaw mhm. boo ñëwee rek mooy mooy mooy mooy invitation bi. <laughs> incha ko defee bu ñu xëyee le matin euh, neuf dana fekk daanaka mise en place bi pare. waaw bu ñu yendoo ci cérémonie bi waxtaanee sëñ Bara ak yi. ci ngoon gi. dinañu def conférence bu mag boo xam ni euh, dinañ ci waxtaanee mboolem ñi nga xam ni ñoom la ñu tuddee bis bi waxtaane ci itam ñi nga xam ne ñoom la ñuy rendre hommage. Mhm. waaw bu ñu xëyee nag ci la ñuy tëj kaamil bi. Mhm. kaamil yi nga xam ni ñi ngi koy jàng euh, lu mu gàtt gàtt 313 yi dana mat. Mhm. waaw buñ ko jàngee boole kook ay limi xasida yoo xam ni yu baree bari daal luñ ci am lépp ñu yéene ko def ko àddee Cheikh Mouhamadou Lamine. yéene ko mboolem ñi nga xam ni ñoom la nekkal daal. Mhm. waaw moom programme daal waaw. waaw. Euh, mhm. daanaka. voilà. incha allah rabbi d'accord ah. jërëjëf sëriñ Asfal jëruñu sëriñ Baara ci diwaanu mhm. Ndakaaru noonu la ñu lay jaajëfal eh, eh, saa njóog nee bu leen fàtte ndekki yi ndekki yi <laughs> murit bari nag alaaji baaram sëñ Fallou la ñuy jaawale ñu bari alaaji baaram sañ Fallou lañuy ñuy jaawale boobu baax waaw ah, ah, loolu loolu ñu baree bari saa njóog comme bis bi dañ ko woote ngir xam la tamit sëñ ba alaaji baaram sëñ Fallou mii nekkoon xalifa mm. sëñ baara Mbàkke lañ ko tudde moom Xaadim Rasuul sëñ Fallou da koo tudde sëñ baara sëñ Baara mii ñuy màggal tamit mooy bàyyi sañ Abo Madiana ak sañ Sidi Mokhtar Mbacke hmm. ak sëñ Basiiru Baara ak sëñ Amet sëñ Abdou Khadim sëñ Bas Xujja sëñ Lat Xujja sëñ Abdou Aziz Baara hmm. borom Jumaada noonu la demee. <laughs> ndeysaan jërëjëf ah, ah. pour pour dalal. Sadio waaw moom bu soobee yàlla bu muy xëyee. Hmm. danañu defari ndékki ndax waañ waa nga ca biir foire. Ah. nañu yóbbu waa ñu mag a mag a mag. boppam lay laajal lu fi ñëw ci mbir ngeen wala ña <laughs> soobee yàlla. ayca jërëjëf Fall. waaw incha allah incha allah rabbi yaa nga fa. bu ñu bu paree cérémonie bi itam fa la ñuy añee. waaw te xéwlu bu baax xéwul gi moom lépp nga. <laughs> lépp nga fa lu waay bëgg a am incha allah rabbi uh, Walfadjri fas yéene ci ànd ak yéen. weer a di fi daw. alhamdulilah kon uh, le 19 incha allah yamoo ak mhm. samedi. Mhm. ci weeru novembre uh, journée culturelle Serigne Bara ci mhm. CICES. ñu ngi woo ñëpp di ñaan ñëpp teew ci ndékkee ak añ yeeg yëpp ñu nga fa <laughs> saa kon euh, di nuyu ñëpp di leen gërëm xam naa ni pajum cosaan tey ji Cheikh Bara bu nekkoon may may ñu ko <laughs> da leen koy jox force <laughs> waaye da leen koy jox ayca mi ngi noonu waaw kon jërëjëf Serigne Bara kontaan nañ bu baax Omar ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf Serigne ñu ngi lay jaajëfal yàq nga àndal yëpp merci beaucoup ak comité d'organisation bi di lay jaajëfal am na solo moom euh, Mamadou Lamine Bara moom moo di waajur ci Serigne Bass Bara Mbacké sama euh, xarit ba yàlla na yàlla yokk leeram bàyyi Serigne Aziz mooy Serigne Ibataal sa xarit moom la dippee tout tànkam bu ndaw la mujj tudd si balaa muy génn àddina ay ca mi ngi noonu kon nag yàlla nañu ci yàlla yóbboog jàmm ñu dem pajum cosaan <laughs>